Euh, bi nga xam ne dafay tere vos membres euh, de compromis ou de compromission avec Macky Sall Euh, je sais pas s'il y pour le moment un compromis wala compromission pour le moment non je ne pense pas mais li ma la mën a wax moo di euh, coalition bi mënul impacter la coalition Yewwi Askan Wi xam nga la coalition donc charte bi ngeen signé amul benn amul benn charte bi amul dara lu ko xët ah. lan moo ko xët ah. est-ce qu'il y un compromis situation bi am na compromis attends ma defaral la rétrospective Euh, il y a trois semaines, Idrissa Seck a fait une sortie pour dire qu'il s'est entretenu avec Ousmane Sonko. Mm Sonko yooyu ci addi addu mais Barthélémy Diaz a dit aujourd'hui mm -hmm. que Idrissa Seck waxtaan na ak Ousmane Sonko te li ñu doon waxtaanee euh, lu concerne Ousmane Sonko la mhm. muy benn mhm. donc am na kenn ci coalition boo xam ne daf na échappé euh, solitaire dam waxtaan di di jéem a teg pont ak Macky Sall j'ai demandé ça à Ngagne Demba Touré nee na moom mënu ko confirmer mais il, il, il paraîtrait eu euh, des tentatives de lancer une négociation entre Ousmane Sonko et Macky Sall par l'intermédiaire de sa sec deuxième chose Barthélémy Diaz nee na moom moo initié l'appel au dialogue Khalifa Sall euh, consulté na ay basam nee nañu dañuy dem ci ci ci ci ci dialogue boobu et Barthélemy revient pour dire tous les actes qu'il a initiés par rapport à cet appel au dialogue ont été par Ousmane Sonko et et, et Khalifa Sall et votre charte dit que kenn warul euh, nekk dans un compromis ou dans une compromission avec Macky Sall aujourd'hui le PUR est-ce que vous êtes à l'aise quand vous voyez que seen partenaires yi nga xam ne ñoom te yéen da ngeen radi da ngeen radicalisé wu euh, dernièrement mayatu leen sax Macky Sall possibilité waxtaan da ngeen radicalisé wu est-ce que vous êtes à l'aise est-ce que vous ne vous sentez pas trahi quelque part est-ce que gars yi nekkuñ di lijjanti parce que seen coalition bi ku nekk ngiy lijjanti boppam xam nga bi ngay indi sa argumentaire je sais pas si def nga ci attention conditionnel nga andi. donc yow oh. wóoru la. Euh, donc dès lors que <laughs> conditionnel nga andi wóoru donc à partir de là. non la rencontre Idrissa Seck euh, Ousmane Sonko a eu lieu. non le contenu des le la indi conditionnel. mais rencontre bi moom am na. moom laa la wax. ah rencontre bi bu amee la fa waxante xamuloo ko. bu Barthélemy Dias génne wax pourquoi man ma war a gëm ne loolu moo am c'est-à-dire man dama jàpp ni su fekkee da am une responsabilité wala su fekkee da am ay responsabilité am na loo xam ni ni waroo ko waxee du lu jóg rek nga wax wala loo dégg rek wax ci. et le message s'adresse à qui à Barthélemy Dias ou à Ousmane Sonko. quel message. du lu boo amee responsabilité. du lu jóg rek non yaa ma laaj ne ma. ci rencontre boobu is. utiliser conditionnel ne dafa mel ni xaw ma il semblerait que man fekkee ma rencontre bi Ousmane Sonko waxuma dara ci rencontre bi Barthélémy Diaz waxuma dara ci rencontre bi man en tant que responsable représentant Serigne Moustapha étant le secrétaire national secrétaire général national de la du parti d'unité du rassemblement on ne m'a pas éduqué comme ça lépp lu may wax dafa may wóor dama ci am lu ma leer mais je ne vais pas spéculer su fekkee ne Idrissa Seck rencontré na ak Ousmane Sonko lu ñu mën di waxante dès lors que man Ousmane woowu ma ne ma lii ak lii ak lii laa wax ak moom euh, keneen ku ma ko wax wala Idrissa Seck ma te Seck ma ko sax Idrissa Seck puisqu'on même pas donc cest dire li ma bëgg wax foofu moo di euh, moo en tant que politique étant du parti de l'unité du rassemblement dafa am benn ligne de conduite bu ñu ma yare ci laa teg sama tànk lu ma wóor dana ko aborder wax ci clairement lu ma wóorul du ma spéculer parce que nit wax lu la wóorul c'est de la spéculation donc moo tax euh, ma ne la euh, Barthélémy mu wax ça n'engage que lui man awma ci commentaire bu may def euh, quant à la coalition Yewwi Askan Wi ou bien le PUR le PUR fait partie des membres initiateurs de la coalition Yewwi Askan Wi comme Taxawu et Pastef il euh, y avait euh, le Parti démocratique sénégalais mais ñoom dañu génn avant donc en aucun cas en aucun cas ces euh, ces ces problèmes yi am ni mënul impacter la coalition Yewwi Askan Wi si c'était le cas démb on on on n'allait pas tenir un point de presse et le point de presse bi ñu tenir ñu ñëpp on a été sur la même longueur d'onde donc pour wax rek ni euh, am na échange yoo xam ne ni ça aurait pu être évité ça aurait pu être évité mais c'est pas parce que am na que dañu xët charte wala dañu. dafay impacter euh, la coalition Yewwi Askan Wi parce que ci charte bi wax nga ko léegi bëgguñu compromis ak compromission compromis gaw ma ne am na dégg dégguma nga wax ne am na compromis compromission non y a un compromis compromis taxaw d'accord na dem ci dialogue bi xalifa Demb au niveau de la conférence des leaders nous avons maa ngi koy wax sànq waxtaan nañu Khalifa waxul benn yoon que ni taxawu dafay dem ci jaloog bi xalifa li mu wax dafa ni euh, moom ci li ma dégg ci Pape Alé ak li mu wax dem au niveau de la conférence éditeur dafa ne moom il a horreur de la chaise vide tegaat ci wax ni euh, moom mi ngi nekk du consulter sa base militante et il n'a pas encore les résultats et donc à partir de là mënul wax ni danañu dem wala du ñu dem kilifa nag su toogee ci biiri mbokk kilifaam ak moromi kilifaam wax du ñu mën a jàpp lu dul li mu wax loolu mën naa ci àddu puisque wax na ko ma dégg mais li nga xam ne nii fekkewuma ko ñi ko wax ñoom ñoo ko waxante xaw ma la ñu waxante ña ko fekkee waxuñu ma du ci